waaw ndax koo dégg rek bu lay wax ci miraas danaan la waaw miraas daal moom góor ñaar jigéen benn waaw loolu rek lañ xam ci miraas waaw foo waxee daal ñu ni miraas daal góor ñaar jigéen benn te fekk miraas moo gën a jafe loolu loolu mooy li ca gën a ndaw bu miraas yombee ba yomb mooy bu góor ñaar góor di am ñaar jigéen di am benn loolu rek du du miraas bu ko defee comme nag xam-xam la bu jafe ba nga xamante ni géeju ga ca war ba mu mën a leer ci bopp yi amu ca kon ku ku woote jataay boobu yow fa nga duut sa baaraam baax na foofu nga duut sa baaraam fu baax la miraas du lu ñu mën a toog ci benn jataay dégg ko xam ko loolu moom mënta ne loolu comme ni ko sunu mbokk mi junje du du xam bu ñuy toog ci jataay nga dégg ko xam ko mënta ne ndax ñun ñi nga xamante ni jàng nañ ko man jàng naa ci boo maytuwul ñetti téere yu wuute ñetti téere yu wuté wala bok jang na ci ben téré bo xamné dañ mako ko ba pare ma dem lire ci yenen ñaari téré té taxul ba tay ji dama ci am ay problème tay ji buñ ma woowee ni ma suba eh, da nga wara wax ci miraas faaw ma dem xolaat ko sino buma ñëwé eh, musiba am duma ci xam day rër ndax deppal runge eh, dé nga mam bari ay dugg ak genn ba nga xamanteni téwlu ko ci sa xel ak lo ci xam-xam-xam téwlu lepp lepp lepp ci sa bop lu jafé la kon nag ñu xamee ko noonu ñu xam ni rek dañuy ñëw ci euh, jataay bi ngir taataan si fi lu ñëw xame ceet lu néew xam baas yi waaye nag jóge ci jataay bi bu ma demee damay miraate sama bopp yaakaaru ba mu yomb yàlla nag mayee na xel nu ne am na ñoo xam ni xaj na seen xel neex na nu ne waaye jàpp ma ni mën nañoo waxtaan ñu ëpp ci ñun bu ñu demee man ko waaye nag dinañ ci jariñu bu baax a baax a baax a baax kon bu ko defé dañuy dugg rek mu baasaratan ci thème bi lan moy mirage mirage buñ ko doon wax ci olof moy ci fi nit joggé bayyi fi alal bayyi fi ak njabot waaw njabot nak du buñ ko waxé ci miraas waxuñu dom kese ak ki njabot bayyi dom bayyi tax rak mak ñepp ci njabot gi lañuy dugg kon miras ci buñ ko doon firi ci wolof moy nit ki dafee dafa dafee jóge bàyyi na fi alal bàyyi na fi ak njaboot léegi nag ñu war a séddale alal joojee léegi ilmul miiraas lan lay jàngale nan lañ ko war a séddalee ba nga xamante ni dina nekk lu maandu ñu jox kulla di xaqin xaqin ñu jox képp koo nga xamante ni dafa am àq àqam kenn du ko tooñ loolu dong mooy objectif bi nga xamante ni moo waral ñuy miiraas léegi nag xam-xam bobu njariñ li nan la tollu xam-xam la bu am solo bu am solo lol yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci ben hadith ni al ilmu salasa wa ma ana ada zalika fa huwa fadlun ñu ni ko yan mu ni aaya muhkama sunna qaa'ima wa farida aadila mu ni xam-xam ñett la bu génnee ñett yi rek ngëneel la xam-xam ñett la bu génnee ñene ñett yi rek nekkatul xam-xam waaye ngëneel la ko yonent bi tudde bi ci njëkk mu ni aya muhkama mu ni aya bo nga xamantene dafa wacce daa atte dara atte mo xam zanni yu dalala wala wala qat'i yu dilala manam mu atte dara nilila, ni li la nonan dañ ko wara a lola ci xam-xam la dañ ko wara xam dañ ko wara jëf sunna qaima yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax ben hadith bo nga xamantene top nañ ko werna sanad ba werna matti ba werna manam cyallale gi bamu yegg ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam werna hadith bi jëmmi hadith bi ci bopam werna bu boba dañ ko wara jëfé ba ca topp nag mu mujj ko mooy hmm, euh, wasul na xam wa farida aadila maanaam miiras mu maana kon dangay gis miiras position bi mu am da ngay dégg alxuraan ak sunna teg ci miiras kon dangay xam ni lu am solo la gis nga position bi mu taxawee lu amee solo noonu nag mënuñoo jiital ñaar yi nag ba pare mujj bàyyi ko kon nag dañ ci war di ñëw waye nit ñi dañuy wax rek ci fiq bi neena ni bu jappo ni ni la koy def ba mu rafet bu julle na di ñaari rakka nanga ma itu. Kon lulu bi dañ koy dañ koy maytu kon loolu day tektale am solo gi nga xamanteni am na solo bi ci topaté borom xam xam-xam wax ko moy moy ben xam-xam bi nga xamanteni manam ben patch ci nekkuk doomu adami mom la occupé ndax nekkuk doomi adama ñaar la rek manam nekkuk àddunaam ak ak nekkuk alakhirah ñaar la manam nek ji muy dundu ba muy dundu ak ba mu dewe xam-xam bi nga xamanteni ni aju ci dundu mom moy xam-xam yi ñuy jang moy nu nuy julle nu nuy woré nu nuy jëflanté ak suñu mbokk jul maytu togn li nga xamni mom la islam di aju kon mo may ben xaj bi benen xaj bi moy nit ki bu fi joggé moy kon da ngay gis ni manam nisfu day dem ba nuru nisfu diin nga xamni ni diine daa lenn li da nekku xaj miras nekk xaj kon na xam-xam bu ñu joxe dayo bu tol noonu kon fonk ko war lol lol lol lol lool lool nit ñi nit ñi fonk ko kon loolu mooy li nga xamante ni mooy tax ñu xam dayo bi nga xamante ni miiras am na ko léegi nag kañ la ñu war a miiras kañ ban jamono la ñu war a ndax du ñu tëb tëb rek ñu ni dañuy mirage nit du jekki jekki mu ni damay mirage sama bopp te deewoogo duñ jekki jekki xool nit neexu la rek nga ne ko sa alal ji dama koy mirage det yaakaar naa loolu moom kenn du ko def waaw kon daa war a am arkaan yoo xam ni moo war a daje ñu bu ko defee miraas moomee mën a am arkaan yooyee ñett la ñetti ponk moo mën a daje miraas am benn bu ca manqué rek mirage wërta am benn bi muñ ci njëkk mooy lan al al al mawrus al waarisu ak say un yuuras al mawrus mooy ki ñu war a doon mooy mu dee maanaam nit ki day dee ba ñu war koo doon maanaam daa war a dee nit daa war a dee dee daa war a am ba pare alwaarisu bu deewee ba pare sàrtum ñaareel ba mooy dafee war a bàyyi ñu koy doon bu fi bàyyiwul ñu koy doon tamit doon mënta am ñetteel ba mooy say un yuuras dafee war a bàyyi lu ñu doon alal dafee war a bàyyi lu ñu doon benn bu ci manqué rek miiras ma du am bu fekkente ni dee na bàyyi fi njaboot bàyyi fi euh, dee nga ma am alal kenn du ko doon bu fekkenten da fe bàyyi alal bayi fi njabot di dundit ken duko don budé ben manké na ci manam lolu moy arkan moy ben bu ca manké rek dee suñu kon ñetti arkan yoy luñu wara japp la té japp na ni lu yomba japp la manam faaw nit dé ñu doora mirage mu bayyi fi ñuko don su fi dara dara dara bi alalam jojé ken duko mirage miraas dañ koy dem dugal ko trésor public tay gi li ñuy wax baytul mal muslimin manam bi nga xamante islam mo manam mo doon gouverner alal ju mel qui dañ ko doon ñu ko ci li nga trésor public bi bu ko ñu ci ay ci bu doon euh, Sénégal euh, nous avons koy té république islamique Nous ñuy appliquer islam tay ji ñi nga xamni ñep dañoo amuñu ku leen doon seen alal lu mu milliards dañ koy def trésor public jëlaat ko liggéeye ko ay hôpital wala ay tali wala ay lépp loo nga xamante ni day jëmaat ci askan wi noonu la islaam doon doon ki nga xam ne dafa dafa bàyyi alal te bàyyiwu ko doon waaye bu fekkente ni bàyyi na ko doon ñooñu ñoo ci gën a yey nga xam ne ay daraja la daraja kii ya war a doon kii ci war a doon kii war a topp ba ma ba keroog alal ji di dem baytul maal nga xam ni balaa moo yegg ci mën a dem baytul maal ay procédures yu gudd a gudd la ndax nit gaañu te bàyyiwul dara dara dara dara ku ko mën a doon lu lu xaw a jafe la lu jafé la lol motax da naka baytul mal mom moy dernière option bi inshallah allah bu ko defé nak ginnaw bi nga xamanteni ni wax nañ lolou ñu dugg ci ñan ñoo doon kon xam nañ li tax ñu kañ lañuy doon légui nak ñan ñoo wara doon ñaaray doon moy goor ak jigen légui ñan lan lan wara jëk xam moy ñan ñoy doon ci goor ñi mom lañuy wax al warisuna minar rijaali ñi nga xamanteni ni doon ci goor ñi ñan la kan kan la seenub lim ñaat la kan la ñi nga xamante ñoo war a doon ci jigéen ñi ñan la seenub lim ñaata la kan la léegi nag ñu dugg ci ñi nga xamante ne ñoo war a doon ci góor ñi léegi nag bu boobaa ngir ñu jàpp ko miraas ni ma koy waxee rek miraas maanaam ay kot la mat la mathématique mathématique la ay kot la maanaam bu la fiil ga rëccee rek manam li ñuy wax lepp ci ginnaw do ci xam dara da ngay tok rek mais do ko xam motax li ñuy bëgg wax ni muy muy njiit moy base bi ki ngir nga mëna bu ñuy demati di kon wéyé wéyalé nga xam fa ñu jëm ndax mirage tay ji buñ la doon wax ñan ñoo wara doon mirage dañ lay tegal mi nit tay ji bu fekkonté ni tableau la dañuy bind ni ben lu ñuy wax plus dañuy bind plus waye comme am ñu tableau mi nit ngay jëm mi nit moy taxaw def nii ay loxoom ci base bi ci nga mën a xamee li may bëgg a wax maanaam nga xam ñan ñoo war a doon nii la nit ki def day taxaw def nii bu taxawee def nii day am ñeenti xaal li ko féete kaw ak li ko féete suuf ak li ko féete ndeyjoor ak li ko féete càmmoñ dégg nga nii ngay jàpp mooy base miraas mooy code yi ma lay wax lii la nii la jëmm ji jëmm ji faatu na mais nii la mi ngi nii taxaw léegi ñan ñoo ko féete kaw ñi ko féete kaw ñoom lañuy wax aslul waaris maanaam buñ ko doon firi ci olof mooy ñan ñoo sabab ak gane àddunaam ñan ñoo sabab moom ak gane àddunaam kan moo ca jiitu baay ñoo sabab ak gane àddunaam ku ca jiitu bàyyi la waajur léegi moom ñan la sabab seenu gane àdduna kan moo ca jiitu doom ñan la àndandool ñëw àdduna ñan la mbokk ay mbokk base bii bu la rawee ci miraas léegi nag ñan ñoo ànd ak baayam iddi ko àdduna ay bàyyi taxam ñett yi ñeent yi mooy baas bi maanaam lii boo bu duggee rek bu duggee lu ñuy waxaat da nga koy xam waaye bu duggul lu ñuy wax mën naa jaxasoo lool lool lool ci sa bopp dégg nga maanaam loolu voilà ñu gën dégg nit ki nii la taxawe nii am ñeenti xaal mm. nit ki bi mu taxawee nii nii la def am na ñeenti xaal xaal bi péete ci bopp bi mooy ñan ñoo sabab ak ganeem àdduna day tàmbulee ci baay bu jógee ci baay dem ci maam jug bu jógee ci maam jëm kaw maamaati maam jëm kaw ñooñu ñoo sabab ak juddoom léegi nag moom ñan la sabab ak seenu judd day jóge ci doomam jëm ci sëtam jëm ci sëtaatam wàcc jëm ci suuf léegi nag moom ñan la bokkandool juddu ay frère magam ju góor magam ju jigen ila akhiri domi magam ju góor domi magam ju jigen ila Nyan ñan ñoo and ak bayam jur ko ñu féete ko côté cham moy ay bay taxam kon leer na ñent yi nak base bi boko ko xasee li lii ñëwaat ci karam day yomb lol ci kaw bu ko defee nak ci base bi mala jox ba pare ci ngay nak sukkandiku ngir génne ñan ñoo ko war don ci góor ñi ak ñan ñoo ko war ci jigen ñi ndax ñoo ñoy nit ki bu fi jógee ay góor a koy doon ak jigéen léegi nag ñan ñoo war a doon ci ci góor ñi ñan la ñi war a doon ci góor ñi ka jiitu ni ñu koy waxee nii nag mooy priorité ki nga xamante ni moo nekk priorité ci ñi war a doon ci góor ñi ñi war a doon ci góor ñi seenub lim mi ngi toog tollu ci fukk ak juróom 15 personnes ñoo war a doon ci góor 15 ka jiitu mooy doom mooy al ibnu ka ca topp mooy ibnul ibni mooy ab sët bu góor dégg nga ka ca topp di bàyyi bu ma nee ibnu ak ibnu maa ngi maa ngi ci ñi ko féete suuf laa njëkkalim dégg nga ibnu ibnul ibni maanaam doom ak sët bu góor nga dem ci ñu ko féete kaw nga am fa baay ak maam ak lu mu gën a kawe nag bu maam jooju gaañoo geneen jeneen maam ne fa mooy doon boo ñëwee ci li ko féete ndeyjoor nga am falan al aq as shaqiq frère bi nga xamante ni ñoo bokk ndey ak baay ak al ak li ab frère bi nga xamante ni bàyyi rek lañu bokk ak al axu li umm ak frère bi nga xamante ni ay doomi ndey lañ yaay yaay rek lañu bokk boo ko jógee nga am ibnul ax ashaqiq ibnul ax ashaqiq maanaam doomi frère am bi nga xamante ni ñoo bokk ndey ak bàyyi mais nag ci priorité la bu fi kii nekkee rek kii du du am ki may mujj tudd bu fi kii nekkee rek la plupart am na nag ay exception ma la plupart ki ma njëkk a kii bu fi nekkee rek mën na koo xañ Deng, ibnul aq ashaq mo ci top manam domi ki nga xamanteni ño bokku nday ak bay domam ku gor ki nga xamanteni ño gor ñi lay wax de ki nga xamanteni ku gor la ño bokku nday ak bay domam ak ibnul aqli ab ki nga xamanteni bay rek lañu bokku domam ju gor da koy war na koo doon dégg nga ñu dem côté bi nga xam fa al am ashaq tekh tëx bi nga xamanteni mom ak bayam ño bokku nday ak bay al am li ab baay tëx xam bi nga xamante ne moom ak baayam bàyyi rek la ñu bokk ibnul am saqiq la am asaqiq maanaam doomi bàyyi tëxam bi nga xamante ni moom ak baayam ñoo bokk ndey ak baay ak ibnul am li ab ak baay tëxam bi nga xamante ni euh, moom moom bàyyi rek la bokk ak moom doomam kaca topp mooy jàpp jëkkër jëkkër muy quinze personnes yi xam naa ni lim bi compliqué ne lool lool lool ci yéen waye base bama len joxone boko japp ko jàpp rek lii tax ne suma ñewon rek lim ko direct te amo base bi day jafe ñi doon ci goor ñi ka ca njëkk mooy doom akub sët bu goor ka ca topp mooy ak mam ak lu mu sori sori ka ca topp frère mbokk moy frère bi mu bokal nday ak bay ka ca topp frère bi nga xamanteni bay rek lañu bok de nga bay rek lañu bok ka ca frère bi nga xamanteni ni doomu ndeyam la ka ca topp doomi frère bam bi nga xamante ni ñoo bokk ndey ak baay ak doomi frère bi nga xamante ni baay rek la ñu bokk ah boo paree nga dem ci baay taxam bi nga xamante ni moom ak baayam bokk ndey baay ak baay taxam bi nga xamante ni moom ak baayam baay rek la bokk ak doomi baay taxam ji mu bokk bi bokk ak baayam ndey ak baay baay taxam bi nga xamante ni moom ak baayam baay rek bokk ak li nga xamante ni mooy jëkkër kon ñii ñooy fukki nit ak juróom ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a doon muy ay góor léegi nag ñan ñoo wara doon ci jigéen ñi ñi wara doon ci jigen ñi ni ma joxe won, base bi ma joxe won rek mom ngay topat ñi nga xamanteni ño sabab ak juddom ak ñi nga xamanteni mom mo sabab seenu judd ak ñi nga xamanteni ñom ño juddondo bu ko defé nak bu ñu ñëwee ci jigen ben côté bi day dañ bu boba nit ki day taxaw waaye ni lay def ben loxo rek lay talal bu boba ay badjan dañuy genn kon badjan du du am bu dee ki goor bi nga taxawé di wax ñi goor da ngay am suuf am ci kaw am gauche am droite am ñeenti côté mais bu dee ci jigen la da ngay am ñetti côté rek ngay am manam ci kaw ngay am ak ci souf ak côté côté ngay jor ñom rek nga am bu ko defee ñan ñoy doon ci jigen ñi kon day yomb bu doon nag base bi duguna lool bu ñëwé rek dang koy xam kon ka ca jitu kan lay doon dom ju jigen ka ca ka ca top kan lay doon seut bu jigen ka ca top kan lay doon yaayam yaayam yaayam parce que ci jigen ñi lañu ka ca topp mooy maamam ji nga xamante ni moo jur baayam ak maamam ji nga xamante ni moo jur yaayam ka ca topp di ab sëram maanaam sëram al uxt bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay sëram bi mu bokkal ndey ak baay ak al uxtu li ab ak sëram bi nga xamante ni ñoo bokk baay kese ak uxtu li umm mooy sëram bi nga xamante ni yaay rek lañu bokk doomu ndeyam dégg bo limé jigen ñi da ngay gis ni ñom ñi ngi tollu ci euh, ñi ngi tollu ci fukk lañu tollu da ngay am bintu al bintu moy dom da ngay am dom sët bu jigen sët bu jigen bi nga xam nak sa dom ju góor ko jur loolu da ci da ci mata baye xel ah bo fa joge nga am yaay am mam ju jigen ji jur sa yaay mam ju jigen ji jur sa euh, sa baye de nga mam fa tabarakallah bo ci joge nga am sa sœur bi nga xamanteni yena bok nday ak ak sœur bi nga xamanteni nday rek bay rek ngeen bok ak sœur bi nga xamanteni euh ay doomi ay doomi bay ngeen ke ca mujj dama ak ak ak jabar kon ñi ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy doon ci jigeen bu ko defé kon wax ji rek boko déggé déggee fi affaire yi fi lol lol day tambulé compliqué lol lol lol ci sa bop parce que li rek japp ko fi mu na motax mirage buñ la ko rek ci goor ñaar jigeen ben rek lolou day day xaw a nekk yomb lool lool day nuru yomb lool lool lool waaye nag boo demee ba bëgg koo gëstu ba xam ko nag ci ngay xam ni ndekete yombewul noonu bu ko defee eh, bu ñu jógee ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy doon ci góor ñi xam nañ ko te ko sukkandiku ci jëmm ji ma leen wan ak ñi nga xamante ni ñooy doon ci jigéen ñi xam nañ ko te sukkandiku ci jëmm ji ñu ma leen wan nga xam ni loolu mooy base bi léegi nag ñii donn dafa am ñaar ñaari xaaj lañu dafa am lu ñuy wax wirasa sababiyya ak wirasa nasabiyya deng ki nga xamanteni donu lay sabab moko jur ab sabab ak ki nga xamanteni donu gim gim lay doon nasab moko jur manam da ngeen a geñu ñaari ni tay doon ki nga xamanteni da lay ndax da am lu ko sabab rek man ngeena baña bokku a ak awa man na dëkk France nek ab tubaab bu weex yow nga dëkk senegal nek nit ku ñul kuk mu la fekk da am lu koku sabab la waye du deret li nga xamantene nak moy mooy nasabiya moy ki nga xamantene de gene bokko mo xam mu fete la kaw bokku ci ñi la jur ñi sabab sa juddu wala mu fete la su bokku ci ñi nga xamni ya sabab seenu juddu mu tambule ci dom jëm suuf wala mu nek say sœur wala say frère ñi fete la ndejor wala mu nek baye tax ñoñu wirasa nasabiya la manam lolu nasab la waye wirasa sababiya moy ki nga xamanteni nak mom sababa tax ngeen mirage bu ko defé ñoñu da nga ci gis ñent dinga nga ci gis euh, jëkkër di nga ci gis jabar di nga ci gis loo nga xamante ne daan na am amatul ñu naan ko mawlal mu'tiq wala mawlal mu'tiqa maanaam ki nga xamante ne dafa joral ab jaam bu fekkente dafa goreel ab jaam boobu day am ci moom autorité ba jaam boobu bu gaañoo day doonu jaam bi moo xam ku góor la ku góor bu goreelee jaam jaam boobu bu amee alal bu ko bu ëllëgee moom goreel ga mu koy goreeloon mooy tax yàlla da koy mayu cër da koy doon jigen tamit bu gorélé ab jam gorél gam ko tax gorél day tax cër euh, day am ci mom cër bu ndono kon gis nga ñent yo xamni ni dinañ doon waaye nasab waralu ko moom sababa ko waral moy man nit ki jigen gi man nga ko may ko xamné ab sinwa la wuñ ci adam ak aw waaye sa yu ku jigen ki joggé ku gor ki da koy doon té sinwa la waaw ci kaw nak mu tup ku jigen ket bu fikki joggé da koy doon jëkkër mom tamit day doon jabaram ak lu jabaram mana doon mom tamit bu gaño jaba jabaram da koy doon ki nga xamanteni dafa am ab jam day doon jam bi waye jam bi du ko doon ki gorel jam mo xam gor la mo xam jigen la sa yu fi jam bobu joge da koy doon kon ñi moy ñi nga xamanteni ne dañuy def dañuy doon ne ci geño ak ñi nga xamanteni dañuy doon ne ci ci li nga xamanteni moy moy ci sabab moy ki doon ci sabab limal na len ko moy ñi ñi nga xamanteni sababa len boole ak ñi nga ci nasab lañuy lañuy donné donne bu ko défé kon ñaar ñooñu lu lu lu mata bayyi xel la bala ñoo wéy bu ko défé nak ginnaw tuddu nañ ñi wara a doon ci goor ñi tuddu ñi wara a doon ci jigen ñi tuddat xaj yi ñaari xaaji nit ñaari façon nit ñi wara doon nga xamni ni ki nga xam day doon ndax sabab ak ki nga xamanteni ni day doon ndax nasab ki doon ngir goñ ak ki doon ndax sabab bu ko sabab dañuy dugg nak ci ana cër yan la doon yan cër la doon nak légui yan cër la doon cër yi nga xamanteni ni lañu la doon te islam indiko dafa tollu ci jurom ben cër manam amul jurom ñaarel jurom ben cër kese kese la alquran indi mom la yalla indi ci mom la wara doon cër ba ca njëkk mom moy nisif moy ab euh, demi waaw moy ab manam xaat ci digg bi moy nisif manam alal jaa ngi nii ñu xat ko ci digg bi 1 million la cinq cent mille loolu mooy nisif am na ñoo xam lañ wara am dama joxe nak exemple 1 million rek man na nek 1000 francs man na nek 10000 waye nisif moy alal ji ñu xat ko ci digg bi amna ko xamni lolu la wara jël lolu mo def ci ram amna ñu koy jël insha allah bu ko temps bi dinañ ci ñëw ab ño xamanteni ni li ñu war jël moy ab rubon rubon moy ab kaar manam ñu xat alal ji ñent xat mu jël benn ba am na ñu ko war a jël maanaam rebond maanaam ñu xaaj alal ji ñeenti xaaj mu jël benn ba am na ñoo xam ne cër boobu lañu war a am am na ñoo nga xamante ni sulus lañ war a am sulus mooy ceer je pense su ma juumulee ceer maanaam ñu xaaj alal ji ñetti xaaj mu jël benn ba waaw waaw dinaa ci ñëw bu ñëwee ci xabaar waaw benn waaw noonu la wax nga dëgg noonu moo gën waaw waaw kay macha allah jërëjëf sëñ Oustaz Mass mi ngi noonu kon nisif man koy toftale nisif maanaam ñu xaaj alal ji ci digg bi hmm. mu jël benn ba nisfuhu nisfuhu mooy rubo ñu xaaj ko ñeenti xaaj hmm. mu jël benn ba léegi nag loolu mooy sumun maanaam ñu xaaj ko juróom-ñetti xaaj juróom-ñetti xaaj ñu jël benn ba dégg ak banaat bi ci topp mooy sulus ñu dem ci sulus maanaam wa deex fuhu maanaam ñu xaaj alal ji ñetti xaaj am ku jël benn nga jël benn bi wala ñu sulu saani bi ci top moy sulu saani ñu xaj ko euh, ñetti xaj am ñu joxe ñaari deeng nga xamna ni xawna naa compliqué lool bi ci top moy li nga xamanteni moy ñu xaj ko juroom benn xaj ñu jël benn bi yi moy juroom benn ciir yi nga xamanteni islam atte na ni mom lañu wara jël moy nisif rubo sumun sulus sulusani sudus ab xaj ab car ab eh, manam ñu xaj ko ab huit un huitième lañ koy wax un huitième mo ci top bi ci top di ab tiers bi ci top de ab tiers bi ci top di deux tiers bi ci top moy su un un un sixième moy moy moy sudus gis nga kon xaj yi benen tiers amul amul un dixième amul benen tiers yi xaj moy tiers yi nga xamanteni ñewna te alcorane indi ko Eh, fuqaha yi tas ko ba ñu mën bind kutubul eh, kutubul mawaris yi gaay di ko jang kon da ngay gis ni rek déjà fi ne compliqué na xam nga tey jii mënoo xif suba ba ba heure bi lekkoo mar di la sonal ñu lay jox ay mat yo xamni ni xam nga day gëna jafé mu dugg motax ci ngay di rek yow da ngay xamni ni du lo xamni da ngay ñew rek jang ko ben yoon xam ko lolo tax serigne si bu jëkkoon buñ daan mirage hmm. indi ku jang tubab ndax lan ñaari xam-xam la kii xam-xamu fiq la. Mhm. lii xam-xamu calcul. dëgg la waaw te comme ñu jàngoon tubaab nag ñoo gënoon def calcul. Mhm. loolu taxoon nag sëriñ si daan daan ànd ak ku ku def calcul. waaw ndax lan bu ñu nee ne un sixième ah foog nga def calcul. Mhm. bu ñu nee ne euh, ab un quart. di def calcul. kon nag ñaari xam-xam yooyu. ñooy la nit di boole da ko mën a miraas. dëgg la dëgg la foog nga jàng fekk. Mhm. foog nga jàng calcul. dëgg la dëgg la fadal maskura. macha allah jërëjëf waaw koy kon loolu rek daanaka leeral na lépp ndax yii du lu yomb ndax da ngay jékki-jékki rek ñu ni waa ji gaañu ne ñu ni nañ wooy imaam ba ca koñ ba imaam bi ci koñ bi yow ba nga xàmmee ba tey koy gis mosoo koo gis ci ay calcul du commerçant maanaam mat mënu koo toj amul kuy toj lu mat dem ci moom amul kuy ñu ni rek ay ca imaam ba ñëw ñu ni waaw kay ana njaboot gi góor ñaar jigéen benn mais góor ñaar jigéen benn ci ban base léegi ana cër yi kañ la ñu war a def góor ñaar jigéen benn am na waaye nag du du loolu rek mooy miraas am na ay euh, configuration yu am yoo nga xam ni loolu sax du am far góor ñaar jigéen benn sax du am léegi nag boo nee miraas rek ñu ni la góor ñaari jigéen benn loolu xam nga doy na war am na configuration yi nit di gaañoo ci benn condition yoo xam ni loolu du am waaw bu ko defee loolu ñu xam ko bu ko defee euh, wax nañ cër yi maanaam cër yi nga xamante ni moom la ñu war a war a war a war a doon bu ko defee rek ma préciser benn mbir balaa maa wéyal maanaam ñaari façon doon yi daa am dafa am ñoo xam ne dañuy doon cër am ñoo xam ne dañuy doon li nga xamante ni mooy temps yi cër yi mooy ñi ma dafa am ñoo xam ne ñoom loolu la ñuy doon am na ñoo xam ne ci seen biir moom rek la ñuy doon du ñu am mukk tansib am ci seen biir ñoo xam ne am nañ possibilité doon cër doon tansib léegi cër day mel ni xam ngeen ko léegi nag lan mooy tansib tansib mooy koo nga xamante ni du doon cër waaye day bàyyi ñi am cër bu ñu jëlee ba pare moom mu séddoo la ca des wala bu dee moom kese moo fa ne mu jël la ca des foofu nag la possibilité wu li zakari mislu xazil unsayni di ñëw maanaam góor ñaar jigéen benn maanaam foo dégg góor ñaar jigéen benn rek tansib dafa dugg bu boobaa saaxibul furud asxaabul furud dañuy jël seeni cër ñu jox leen seeni cër ki war a jël nisib jël jël ki war a jël sumun ki war a jël rubu ila axiri bu ñu paree nag ña fa des ñoom ñu daal di toog nag daal di séddoo alal ja jamono joojee ñu koy séddoo la war a wax góor ñaar jigéen benn bu dee benn doom bu góor la bu boobaa amul góor ñaar jigéen benn moom kese la ñuy jox la des ca alal yépp waa ji dafa gaañu bàyyi fi baay ak doomam waa ji dafa gaañu waaye baay dong la fi bàyyi ak doom bu boobaa baay ba lu muy jël day jël sudusam parce que doom am na baay ba jël na sudusam maanaam bu boobaa waa gaañu na baay ak benn doom bu góor la fi ba benn baay ak benn doom bu góor bu boobaa baay bi lu muy jël sudus bu boobaa alal ji lii moom yaakaar naa ñëpp di ngeen ko mën bu boobaa alal ji dañ koy xaaj juróom benni xaaj ñu jël benn xaaj ba jox ko baay bi pare na ca day jóg dem doom ji la ca des yépp moo ko moom maanaam juróom benni xaaj doom bi moo moom juróom baay bi moom benn bi nga bu fekkente ni waa ji dafa gaañu mu bàyyi fi baayam bàyyi fi doom ju góor ak doom ju jigéen baay bi dañuy xaaj alal ji juróom benn xaaj baay ba jël benn ba pare na ca moom na dem léegi nag bu boobaa doom ju góor ji ak doom ju jigéen ñi nan la ñuy def góor ñaar jigéen benn yow yaa ngi suivre yow doon la mi ngi noonu foofu lay xaal boobu lay amee bu fekkoon te ni tamit waa ji dafa gaañu bàyyi fi bàyyi ci exemple yu gën a terre à parce que yu compliqué yi amul solo doo ci xamee dañ koy ba mu gën a yomb waa ji dafa gaañu bàyyi na fi bàyyi bàyyi fi doom ju jigéen jenn doom ju jigéen ak ñetti doom yu góor bu boobaa nu ñuy def baay bi day jël su sam dem na ñetti doom yu góor yooyu ku nekk da ngay jël ñaar jigéen ji jël benn noonu lañ koy séddale bu ko defee loolu pour euh, gàttal ñu xamee ni xaal boobu la la la la ñaaral ak gér di amee mais mën naa bañ a am am na yeneen voilà yeneen xaal yoo xam ni mën naa mën naa bañ a demee bu ko defee yow moom xaw ma noo sant waaye koor gi desata laa jàpp <laughs> yaa ngi seen waaw waaw waa kay jërëjëf bu ko defee nag ci ñi nga xamante ni ñoo war a doon furut ci lañu nekk nii ñi nga xamante ni ñoo war a doon tansib dinañ ci ñëw maanaam ñi nga xam ne ñoom amuñu cër waaye dañuy séddoo comme ñi ma lim nii ñooñu amuñu cër maanaam doom ju góor doom ji génn am na cër am na kon moom li ma la doon wax day ñëw am na possibilité jël cëram te dinañ ñëw ci cëram am possibilité dem nekk tansib maanaam bokk ci séddookat yi am maa doom ju góor nag amul possibilité boobu doom ju góor moom amul cër moom toujours day xaar ñiy jël seen cër jël moom mu dem séddoo ji doom ju góor mës mësta am cër bu dee bàyyi am na possibilité ñaar yëpp waaye loolu bu ñu ci ñëwee day day day euh, day day day day gën a compliqué bu ko defee loolu mooy leeral yu yu ndaw yoo nga xamante ne bu ñu ko defee nit ki dina xaw a dégg tuuti ni ñun li ñuy wax nii di ko théoriser fële la jëm ci séddale bi rek la jëm ak lu mu lu mu compliqué compliqué léegi nag ginnaaw bi ñu tuddee ñaar ñooñu ñi nga xamante ni ay cër la ñuy am ak ñi nga xamante ni taasib la ñuy am te dinañ ci ñëw léegi nag ñan ñooy am cër ñii am cër te cër yi limoon nañ leen muy juróom yenn yooyu ñooñu nag ñan la ñan ñoo ko war a am nga xam ni bu boobaa ay góor da ciy dugg ay jigéen da ciy dugg am na ci góor ñoo xamante ni dañoo war a am cër am ci jigéen ñoo nga xamante ni dañoo war a am cër léegi nag ñan ñooy war a am cër bu boobaa tamit dañuy duggaat ci beneen base boo nga xamante ni beneen beneen euh, genre théorie laa ko mën a tuddee wala code boo xam ne ci nga mën a sukkandiku ngir xam mu yomb lool nga xam ñan ñoo am lan ñan ñoo am yii cër ñan ñoo am nisif ñan ñoo am rubon ñan ñoo am sumul ñan ñoo am sulusaani ak ñan ñoo am sulus ci base boobu ngay mën a sukki xam ku nga xamante ni ñu ngi ko tënk ci kalima bu ñuy wax haba dabas gars yi dañ koo tënk ci kalima haba dabas boo demee ci ñi nga xamante ni loolu ñiy jàngale miraas ñoom ñoo ko théoriser xabaa da ñiy jàngale boog majaalis ñoom ñoo ko tënk ci ngir ndongal yi mën a jàpp comme yëf yi dafa jafe ay code la ñoom ñoo ko tënk noonu ci xabaa dabas ngir ndongali man koo jàpp xabaa dabas juróom la baa gi ñaar la loolu nag boo demee ci ñi euh, mbirum lasraar ñoom dinañ ko xam si euh, araf bu nekk lettre bu nekk dafa am chiffre chiffre bu muy bu muy représenté haa gi moom juróom la lay taxawe ah haa gi juróom lay taxawe moom ñooñu mooy juróom ñi war a doon nisif baa gi ñaar lay taxawe mooy ñaar ñi war a doon rubo alif gi benn lay taxawe mooy kenn ki war a doon sumun daal gi ñeent lay taxawe mooy ñeent ñi war a doon sulusaani zaay gi ba amu amaat foofu xaba da waaw baa gi mooy ñaar ñi war a doon sulus kaat ñi war a doon sulusaani ci laa jóge mooy daal gi baa gi ci topp mooy baa gi nekk ci bas gi mooy baa googu mooy ñaar ñi war a doon sulus zaayil gi mooy juróom benn walla juróom ñaar ñi nga xam ni ñoo war a doon sulus dégg nga haa gi juróom la ñoo war a doon nisib nisib mooy lan alal bi ñu xaaj ko ci digg bi kenn mu jël genn wàll gi loolu juróom a ko war a doon dinañ ci ñëw baa gi mooy ñaar ñi war a doon rubo maanaam alal gi ñu xaaj ko ñeenti xaaj ñu jël benn kii bi ñaar a ko war a doon dinañ ci ñëw alif gi mooy alal gi ñu xaaj ko juróom-ñetti xaaj mu jël benn kenn na ko war a doon dinañ ci ñëw daal gi mooy alal gi ñu xaaj ko ñetti xaaj mu jël ñaar yi ñeent a ko war a def dinañ ci ñëw baa gi ci topp mooy ñaar ñi nga xamante ni ñoo war a doon alal gi ñu xaaj ko ñetti xaaj ku ne jël benn ku ne maanaam ñu xaaj ko ñetti xaaj nga jël benn ñaar a ko war a doon dinañ ci ñëw zaayid gi mooy juróom ñaari nit ñi nga xamante ni ñoo war a donn li nga xamante ni mooy mooy sudus maanaam ñu xaaj ko juróom benn xaaj fa tabaarakallaahu mu jël benn bi léegi nag kon ci ñuy ñëw mubaasaratan mooy ñan ñoo war a doon nisif maanaam alal ji kañ la ñuy xaaj alal ji ci digg bi bu doon ñaari kër la kër yu tolloo valeur kër gi këru 100 millions la kër gi këru 100 millions la nga xam ni kooku moom amul de cerce amul cerce de midi à 14 heures kër gi 100 millions kër gi 100 millions kooku moom bu fa nekkee moom daa war a jël daa war a jël genn kër gi dèjà bu ko defee nag ñi ci des ñoom ñu xool nu ñuy jaayee geneen kër gi séddoo ko wala nu ñu koy bokk loolu day ñu ñooy ñi war a jël nisif ñooñu ñan la ka ca njëkk mooy jëkkër dañ dikk jëkkër ba pare dina ñëw ci bind jëkkër moo ci njëkk jëkkër ci jabaram am na ci jamono boo xam ni ci xaal boo xamante ni dafa war a doon xaajub alalam dégg nga kon am na danga ciy dégg ni am na ci xaal boo xam ni warut a doon xaaju alalam du xaal yëpp parce que nit dina jóge tey ci cër bi mu déplacé wu jëm ca cër bee moo tax xam nga miraas yombul nit koo xam tey bu doon day fixe ñu ni la jëkkër moom nisif rek lay jël wala ala ala kulli xaal nisif lay jël kooku dana yomb a gérer waaye bu ñu nee la tey jii nisif lay jël waaye kat am na benn xaal boo xam ni bu amee. day delluwaat jóge foofu fi mu ne ça devient compliqué day gën a doy waar léegi nag jëkkër ki ci njëkk mooy jëkkër jëkkër bu jabaram gaañoo te bàyyiwul benn doom bàyyiwul benn doom bu boobaa xaaju aralam lay jël léegi nag bu bàyyee doom ban cër lay jël dinañ ci ñëw ci kanam incha allah kon ki war a njëkk a jël nisib kan la ki ci njëkk am possibilité moom mooy ki njëkk am faveur boobu mooy zawj ki nga xamante ni jëkkër waaye jabar amul loolu ci moom de jabar du kii de amul ay parité ak yooyu de foofu ji góor moom moo am droit li waaye jigéen amul droit jël xaaj euh, dégg nga ki ci topp mooy kan mooy doom ju jigéen doom ju jigéen moom lañuy ñuy wax al bintu waa ji dafa gaañu bàyyi fi doom ju jigéen benn doom bu jigéen benn dégg nga doom ju góor amul sët bu góor amul xam nga kon mi ngi bëgg a doy war doom ji jigéen la fi bàyyi yu bëri yu bëri yu wër loolu ñu ci duggee day day compliqué parce que day dugg ci xoj bu xoj bu xirnaan ñaari façon xoj bu moo xam <coughs> moo xoj bu maanaam mooy dem ba benn moment ñu ni la yow waroo doon moo am ñaar euh, maanaam am na ku fi ne moo la yàqal mooy ci li ma doon wax ni priorité la am na ku fi ne mu yàqal la mooy xoj bu voilà ñu éliminer la am na nag xoj bu xoj bu nuqsaan mooy maanaam dalaa déplacé ci cër bi yóbbu la beneen cër déplacé la ci cër bu am doole yóbbu la cër bu gën a néew comme niñ koy defee dinañ ci ñëw ci kanam nga xam ko xoj bu xermaan maanaam waa ji dalaa xañ da am cër bu am doole mu ñëw mu nekk fi ñu puus la yóbbu la beneen cër bu gën a néew doole am ko da waroon am cër mu nekk fi ñu ñu xañ la dootoo amati mooy xoj bu bii mooy xoj bu xermaan maanaam da daf laa xoj bu yow dootoo am kii nag xoj bu nuqsaan dafa wàññi wàññi sa cër bu ko defee kon dinaa yeggale nis bi waaye dafa am lu ma fàtte lu am solo loo xam ni dama koo waroon a euh, juutal dama koo waroon a bokk ci li ma njëkk a mooy ñi nga xamante ni dañ leen a éliminer d'office ni ma ko mën a waxee maanaam ñoo xam ne dañ leen a mawaaneul irs dañ ñi leen yéen du ngeen doon te pourtant yëpp daje na li tax ñu war a doon ñëpp daje na waaye dañ ñu leen du ngeen doon dinañ ci ñëw bu ñu jógee ci nis bi door a continuer cër yi léegi rek ki ci topp moom mooy bint mooy doom ji jigéen doom ju jigéen euh, moom tamit dafa war a am nis ci kaw ci kaw ay sart isan faradat maanaam su fekkente ni moom kese moo fi ne waaye bu ñu duggee ci détails yi yaakaar naa dinañ jël temps bu ñu duggee ci détails yi dañuy jël temps moom tamit bokk na ci ñi war a am nisi ki ci topp mooy al uxtu saqiqa al uxtu as saqiqa maanaam sa sœur bi nga xam ni yéen a bokk ndey ak baay kooku tamit am na ci jamono boo xam ni bu fi desee moom kese am na possibilité yow frère am nga gaaw ñu jël sa xaaju aral voilà léegi nag ñi la doon wax naan la góor ñaar jigéen benn léegi yow foofu ndax gisoo fa jigéen ëppale ci alal bi ku jël dèjà sa xaaju alal ña ca des war a séddoo kooku ëppalewul xam nga loolu dafa mas a nekk lu lu lu lu lu lu mata kii parce que da ngay gis ci ñi nga xam ne dañuy jéem a jam l'islam les occidentaux ñi nga xam ne dañuy jéem a tànn l'islam dañoo jàpp ni bokk na ci feebulu lislaam mooy islaam dafa dafa dafa dafa diminuer jigéen da koo xeeb jigéen góor ñaar jigéen benn jigéen du lii léegi nag dafa bokk ci ñuy jam mais même héritage sax jigéen du ñaar jigéen bi mais tey ji fii li ma la wax nii tey yow boo fi jógee dèjà yow da nga xam ni loolu ay caaxaan la doonte ni li ëpp li gën a lëngu ci miraas mooy góor ñaar jigéen benn mais xaal bii ma la wax dèjà ñaari xaala ngi nii ma tuddal la ko mooy bint benn doom bu jigéen boo xam dafa jël ña xaaju alal dèjà ëppale na ci alal ji bi ci topp mooy uxtu saqiq sœur bi nga xamante ni yéen a bokk ndey ak baay am na possibilité jël sa xaaju alal ki ci topp mooy sœur bi nga xamante ni baay kese ngeen bokk am na ci jamono yoo nga xamante ni mën na jël sa xaaju alal dégg nga kon lim naa bintu ak bintul ibni ak sët bu jigéen sët bu jigéen am na benn jamono boo nga xamante ni mën na jël sa xaaju alal kon lim naa juróom ba ca njëkk mooy zawju mooy jëkkër ba ca topp mooy bintu doom ju jigéen ba ca topp mooy sët bu jigéen sët bu jigéen bi doom ju góor a koy jur lu ci am solo la yi muy wax nii nag lu am solo la waaw xam nga fi doo ci mën a dugg ci parce que mi ngi noonu walla wax yow yaa ngi jàpp baax a baax <laughs> noo sant waaw wax nga dëgg yow moom santoo ko quoi santoo faal santoo jëng noonu la dégg nga kon wax nañ ci zawj wax nañ ci bintu zawj mooy jëkkër wax nañ ci bintu doom ju jigéen wax nañ ci bintul ibni set bu jigéen wax nañ ci sœur bi nga xamante ni yéen a bokk ndey ak baay ak sœur bi nga xamante ni baay rek ngeen bokk di nga ko gisee nii nag ma tegle ko noonu ma ko teglee priorité ra à partir de à partir de booba nag bu dee priorité bi dangay génn zawj à partir de bintu maanaam doom sët bu jigéen sœur bi nga bokkal ndey ak baay ak bi nga xamante ni baay rek ngeen bokk ku ci jiitu sa morom ñi ci des du ñu am dégg nga bu da génn zaw ji nag zayd moom du xoj bu moom du leen du mënu leen a yir mais ñii ci des ñëpp ku ci bokk sa morom dootu am ni si mais am na xaal boo nga xamante ni am nga possibilité jóge ni sit jëm sudus moo tax lu compliqué la lu compliqué la maanaam ñii li lëngu mooy ñu ci ëpp duñu am mais am na xaal boo xamante ni mën nañoo am mais loolu lu lu lu xawa a kon libal na len juróom ñi nga xamanteni ni wara am cërub cërub manam ñu xaj alal ji ci digg bi ñu jël benn bi léegi nak bala ma ñew ci cër yi damay dugg nak ci ñi nga xamanteni ni dañ leena éliminer won def système fàttali moy ñi nga xamanteni ni irs dafa am ño xamanteni ni nit ki gañu na ni alal ji nii ñoom dañuy genn ba paré ñu doga nak wax ñan ñan lañuy ñu xuj dañ leena éliminer bu boba kot lañ ko def ñu teunk ko ci kalima ish lakarizqan nga xamni baat bi wala lakarizq ben la nga xamni baat bi dafa teunk arab arab di rek da firi dara deja ish dundal laka man nga sàkku wat serveur sak fenen nga xamni baat bi rek deja dafa firi jël yow mu amato possibilité fi waye nag dundal xat nga di nga am wërsëg fenen waye ish lakarizqan bobu ñan la ayin gi da am ku muy signifier shin gi shin gi daa am ku muy ku muy joxoñ laam gi daa am ku muy joxoñ kaaf gi daa am ku muy joxoñ raa gi daa am ku muy joxoñ xaaf gi daa am ku muy joxoñ ayin gi mooy lan adamul istihlaal maanaam liir bi dafa juddu deful benn réaction yëngutuwul maanaam deful benn réaction mais bu juddu woon bu noyyi woon bu jooy bu ne woon ee rek daal di gaañu sax daa war a doon maanaam bu bu dundoon benn signe de vie bu ko wane woon ba pare gaañu rek tax daa war a doon yëngu na ba ñu xam ne mu ngi dund bu gaañoon bu bu fekkonte ne baayam dafa gaañ bu ñu séddale moom day am ba pare ñu door ko doon naan waaye moom alaa kulli xaal day am léegi nag kañ lañ naan ko yow doo am dañ lay éliminer dafa mooy bu juddee deful benn réaction adamul istihlaal am na ñu koy wax tàkku baat bi ñàkk a tàkku damaa xam ne tàkku lu muy firi dëgg dëgg gën a mooy bu juddee te jooyul te jooyul waaw mu ni mun allah rek jeex hmm, rek waaw dinañ ko dóor sax pour mu jooy waaw bu jooyul nag moom doon dootu doon moom moom dèjà moom dootu doon waaye bu dundoon doonte minute la dund ginnaaw moom daa war a doon kon kooku moo njëkk Chine gi mooy a sakku ñaari façon sakk nag dafa am am na ñuy boole nañ ci ñaar fas a sakku fi diini wa sakku fi nasab a sakku fi nasab mooy koo nga xamante ni dafa jékki-jékki rek juux ci famille bi ni ci famille bi laa bokk gars yi nekk ci sikki sàkk maanaam ci famille bi la bokk nu ci bokk ñuy lijjanti di taqarti mais taqarti nañ taqarti mais leeru amuñu possibilité daal dëgg dëgg nan la bokkee ci famille bi wax dëgg yàlla bu boobaa dañ naan ko doo doom ndax say mbir leeru moom daal ñëw na rek nit ci famille bi la bokk man la sama diwee sama maam wala maa jur fii fii nanga ma nanga wala diwee sama baay moo ma jur fee ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad ñu xool ki amuñu possibilité pour ki loolu bu amee sikki sàkk rek loolu dañ naan amul ak sàkku boobu dañ cee dolliwaat ak sàkku fit diini am na koo xam dañuy sikki sàkkam ci diineem maanaam ndax jullit la am du jullit maanaam waa ji daal kenn xamul ci lu mu ne waa ji daal wax yàlla kenn xamul ci lu mu ne sama frère la ma joxe exemple sama bopp wala frère mu waa ji la ab ab mbokkam la rakkam la ju góor wala rakkam ju jigéen waaye moom xamul ci lu mu ne xamul ndax di jullit la xamul ndax leneen la léegi nag bu ñu sikki sàkkaa ci loolu moom dootu ko doon te pourtant wa shakku fii man awalu man voilà looloot beneen la day gën a jafe waaw sakku fii aw waaw booboon maanaam ñu sikki sàkka ci kan moo njëkk fi sabqi daal maanaam ci ci kan moo njëkk a gaañu maanaam dañoo sikki sàkk maanaam mm, may joxe exemple maanaam ñaari mag a rakk ñu ci ab oto wala iyaazu billah mu accident waaw wala bàyyi ak doom oto bokk oto wala iyaazu ñu accident ñu egg si sikki kan moo jiitu sa morom ku njëkk a gaañu ki njëkk a gaañu bu njëkkee gaañu minute sax ki ci des da koy doon ba pare ñoom ñu door ko koo doon day am alal jooju ba pare islam du ko ko xaj da koy am ba pare noonu la islam fonke kon gis nga fonk doomu aadama maanaam booy jàng fiq dëgg ngay xam ni ko islam defee fonk doomu aadama ba cër bi mu am ginnaaw bi mu gaañoo sax dañ ko koy jox ba pare moom ay doomam doon nu ko ko wala keneen doon nu ko ko sax islam du la ko xaj léegi nag bu ñu sikki sàkkaa kan moo jiitu ci kan moo njëkk a ba tey foofu dañuy naan kon kenn ki du doon maanaam mi ngi noonu daal voilà bu ko defee dugg nañ ci sàkku is laka laam gi mooy alli maanaam ñaar ñu rëbbonte ñaar ñi dañoo rëbbonte waaw mooy maanaam jëkkër ak jabar dem ba rëbbonte loolu masala fiq la bu yaatu li aan masala fiq bu yaatu la góor ak jabar bu rëbbonte ba ba ba waat am ci seen diggante ku ne waat kii waat bu boobaa xam nga jeex na bu njëkk Amon nañ lien manam alaqa sababiyya bu warona tax bu don ko waye divorcé nañ ba wat am ci bu boba li an rebonté dal bu amé pour gattal meunatula meunatula don kaaf gi moy al kufru manam ko nga xamantene dafa weddi yalla manam ismu julit la won ñu dem ba ben jamono mu daal ni murtad na bu don sa dom la bu nekkoon milliardaire sax ko don yow boo nekkoon milliardaire war a du laa doon bu dee sa mag la bu nekkoon milliardaire war a too koo doon bu nekk euh, mi ngi noonu bu fekkente ni kufru la ko maanaam ku bi yéefar mën a mën a mën a too koo doon jullit du doon yéefar jullit du du yomb yéefar al kaafira wala al kaafir al maanaam jullit yonent moo ko ne jullit du doon yéefar yéefar du doon jullit ndax yii xat na léegi bëreetul waaye da doon am jamono yonent bi da doon am ñoo xamante ni jamono yonent bi kii day gëm kii du gëm bu yo yoyu da don am islaka rizqan ragi ragi, ar riq ar riq manam ki nga xamantene daj ko gorel koku kooku la ma la rek mom ki ko la koy lu waye mom amul droit don, mom mom du don, ab kon day melni ni day melni ni mat de waaw day melni ni rizqan zain gi dama ko fatte zain gi non waaw noow kii la ak ak zayin nga dama koo fàtte mooy mooy azina doomi njaalo kon bu ko defee day mel ni am na masala bu xawoon juddu ci lu mel noonu doomi njaalo du donn doomi njaalo yaayam lay donn waaye du donn baayam dégg nga loolu tax li tax ñu def ko mooy dañuy bëgg a encourager nit ñi ci sëy ak maytu njaalo ndax yow bu la leeree ni yow tey ji da ngay àqu àqu da ngay àqu ju toll noonu wala yëg bi rek maanaam ci yëg-yëgu nga yow nga yëg ni kii sama doom la waaye mënumaa doon ndax dama koo awul fa ma ko war a aw rek ñaari yooyu rek daa war a tax nit maytu njaaloo maanaam tey jii am naa doom man leer na ma ni maa ko am mais islaam nee na ma doo ko am ndax day encore day bëgguñu maytaliku ko ndax yow nga am sa doom ba pare sa alal lu mu bëri bari du ci doon xam nga ni loolu neexul ku ku mu dal moom yow xaw ma kuy njaalooti waaye xaj na balaa nga koo defati di nga ko séentu wala nit ko xamni wax deug yalla yow leer na ni la ya ko jur ñu ni la du lek du lek sa nga xañ ko ak ju tol non loolu motax ñu ni la azina doomi kon mu leer doomi njaaloo du don doo ko don du la bu la jiitoon doo ko don doo ko don du la don mom yaayam gi nga xamni mom ki la motax mom bu ko defé loolu lu mata baye xel la kon masala bobu day ñew di ñew di ñew rek bu ko defé bobu mom mu leer doon kii du doon doomi jidle nag am na ku koy wax naan doomi jidle doomi jidle loolu leneen la kooku daa bokkul ci ci kii bi kooku daa bu am beneen baay kooku moom du du maanaam jërul laajte xam nga li la kooku maanaam beneen masala dafa dugg feneen doomi jiit la maanaam du lu ñu war a loolu olof a koy wax waaye euh, existé wul ci miraas doomi jiit la moom kooku daa am kër baay am kii moom bokkul ci kii bi ak lu mu jege jege moom wax dëgg yàlla bokul ci ci yef yi bu ko top kan laa defagul khaf gi al alqatlu moy ku ray nit waji dang ko ray waye nak waaye waaw ku ray baayam man na nga ray sa baay man na ray man na ray frère man na ray ku ne mom dal bu raye ku warona don mom hmm. dotu ko tetai bu ko raye te tay ko te tay ko nak budé accident la da koy don. waaw bu da te tay ko Mom ala kulli hal dotu ko don waye nak budé da don dawal auto rek tourner rek par rey baayam bu boobaa duñu déedéet waaw waaye nag foofu boo duggee ci al mazahib al arbaa dañ cee amug wute waaye nag li gën a lëngu te mazhab bu Malik bi nga xamante ni ñun mën nañ ni quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais yi ci la ñu tënku moom moom dani benn rek moo mën a tax mu doon ko moom moo mooy bu fekkente ne tëyu ko moom da koy doon mais am na mazahib yoo xam ne nee nañ moom bu ko rayee moom bu ko tey tëyu ko moom dootu ko doon léegi nag moo tax euh, arab yi di wax benn euh, qaayida naan man man istaajala shay'an qabla awaanihi ba bi xirmaanihi maanaam ku góob sa tool te ñorut doo am dugub ku yàkkamti dara ba tax nga rey nit ngir bëgg a doon alal ndax am na ñu koy def jamono yàqu na yàqu goo xam ne am na ñoo xamante ni seen alal ju seen mag wala seen baay ju am alal jar na leen ñu rey ko ngir doon ko ndax nanguwu leen caa jox wala lu ca xew ak yooyu noonu day am waaye ku ca gën a mel ni lu ca gën a xeej waaw kay nga xam ni yéen a bokk baay mais dafa mel ni baay bi dafa xaw jeex na jëme ci moom yëpp mhm, voilà d'accord ngir jot ca alal ja bu ko defee yooyu yëpp saa yu amee bu ko defee ñu moom dañ leen di éliminer balaa dara xew kon ñooñu laa xawoon a kii ma daal di ko ni naa ko dugal balaa ma wéyal bu ko defee ñu ngi woon ci ñu doon am cër te demoon ci ñi nga xam ne xaaj lañ war a am te ñu tudd ci jëkkër tudd ci doom ju jigéen tuddu ci seut bu jigen tuddu ci sœur bi nga xamni yena bokk nday ak bay ak sœur bi nga xamanteni ni rek ngeen bokk bu ko defé ñaarelu cër bi moy ñi nga xamanteni ño wara jël li nga xamanteni moy moy dafa am ño xamni rubon la jël rubon moy lan ñu xaj ko ñent xaj ñu jël ben lolu ñaar rek koy jël manam fami bi limuy reey reey manam ñu wara doon li ñuy bari bari ñaar do nga ci am plus possibilité doon rubon muy kan jëkkeur ak jabar jëkkër ak jabar jëkkër day doon rubo xam nga jëkkër joxoon nañ leen ko muy doon nisif léegi kañ nag lañ koy tuxal nag mu jóge nisif war a doon rubo léegi ci boobaa ngay soxla kañ ngeen nag lay doon war a doon nisif maanaam kañ la war a doon xaaj kañ la war a jël xaaju alal ji su doom amee day jóge ci nisif dem rubo waaye su doom amul nisif lay jël su dee doom amul moo xam nag doomi jiit la laak lu ne doom jabaram bu amee doom moo xam moo ko jur moo xam juru ko bu amee doom moom day tuxu dootu jël nisif day dem rebon waaye bu fekkente ne jabar ji amul doom bu boobaa nisif lay ñëw kon gis nga li ma lay wax mooy xoj bu saan gi day dugg kon ñaar ñi doon cër euh, cërub rebon maanaam ñu xaaj ko ñeenti xaaj ñu jël benn ki ci jiitu mooy mooy jëkkër moom day doon rebon ci kañ mooy bu fekkente ni doom dafa am bu doom amee moom day jógee nisif dem rubu ki ci des di doon rubu mooy jabar jabar day doon rubu kañ lay doon rubu bu fekkente ni doom amul moom bu doon amul rubu lay doon maanaam jëkkëram gaañu na waaye benn wul benn doom rubu lay doon waaye bu doon amee nag day jóge rubu dem ci beneen cër cër ba muy dem dinañ ci ñëw insha allah léegi nag bu ko defee balaa ñoo kon ne ñu tudd mbir yoo xam ne da nga koy xam dafa am ñoo xam ni lu mirage nit doy waar doñ waar kenn mënu leen a xuñ maanaam force dañoo war a am force ñooñu kenn du leen xañ ñeneen nag ñu dul ñii ñeneen ñu dul ñu juróom benn yi ma lay waaj limal man ngaa am tey suba doo am waaye juróom benn ñii ma lay limal force lu mirage compliqué compliqué compliqué dañoo war a am dañoo war a am ki ci njëkk mooy baay ki ci topp mooy yaay ki ci top moy dom ju gor ki ci top moy dom ju jigen ki ci top moy jeuker ak jabar ñi juroom ben yi kenn mënu leena té am ci mirage mo xam lañuy am dañuy joggi fi wacc ci cër bi waye mom lu miras mi mëna bu doon deureum sax ñom dana am bay yaay dom ju gor dom ju jigen jeuker jabar ñom force dañu wara am ci mirage motax jeuker jëkkër na ni sif dem na rubo tay fekk fa nga xamni ni ak jabar ñom ñokoy doon jabar dana doom rubo jëkkër dina doom rubo léegi nag ki ci topp ki nga xam ne moo war a sumun kenn rek moo war a doon sumun Mira li muy rek kenn rek moo war a doon maanaam ñu xaaj ko juróom-ñetti xaaj mu jël benn ba te moom mooy kan mooy jabar xam nga rubo la doon doon fii waaye dina jóge rubo dem sumun kañ lay jóge rubo dem sumun mooy bu fekkente ni doom dafa am bu ko defee nga xam ni moom jabar foofu contraire jëkkër la jël jëkkër nisif la war am bu dom amul waye bu dom amé day jógee ni sif dem rubo jabar rubo la wara am su dom amul waye bu bu dom amé da fay wara rubo dem dem sumu deng jeuker ap ab xaj la wara am bu dom amul waye bu dom amul dañ koy jëlé dootu am xaj bi dé waye dañ koy xaj ñent aaj mu am ben jabar ñu xaj ko ñent xaj mu am ben la wara am waye bu lola bu fekente ni dom amul waye bu dom amé dañ koy xaj juroom ñett xaj mom mu ku jël ben rang kon ñi ngi ci alif gi haba gi ñi ngi ci alif gi ñu dem ci dal gi dal gi moy ñent ñi nga xamanteni ño wara jël sulusani manam ñu xaj ko ñett xaj ñu jël ñaar yi ñent ñoñu ñan la ñent ñoñu nak da ngay wat ñu doon jël nisif nga genn ci jabar jëkër kessé nonu la ak lan ñu limu ñu nekk ben lolo tax mané la mirage ay kot la da ngay dellu ca ña doon jël nisif dañ naan la ñu doon jël nisif nga ni ma jëkkër a doon jël nisif doom ju jigéen sët bu jigéen sër bi nga bokkal ndey ak baay ak sœur bi nga xamante ni baay rek ngeen bokk léegi nag ñu ni la nag ñan ñooy jël sunu saari génneel zawju kese bii zawju ngay génne jëkkër kon ñaataa fay des ñeent mu tombeek daal gi nga xam ni mooy daal gi nga xam ni mooy ñeent ñi war a jël sulu saani ñeent ñi war a jël sulu saani ba ñuy jël nisib ba muy jël nisib kenn la doonoon suñu doone ñaar dañuy jógee ni sib dem sulu sani seenu cër day yok parce que dañoo yok do benn doom bu jigen la benn doom bu jigen nga fi bayyi sa xaju alal la wara jël ñi ci def seddo nga bayyi fi ñaari doom yu jigen islam ni a ah, aajo waat nañ dimbal naa ko xaat alal di ñetti xaaj ñu jël ñaar ya dégg nga ñu jël ñaar ya ñi ci def seddo kon jeex na nga bayyi waat nga bayyi fi uxtu euh, bintul ibni sët bu jigen mom kese ñu ne la nisif da la wara jël ñu ni ah ñaar lañu ñu ni la kon na joge nisif ñu yobbu ko sulu sani maanaam ñu xaj ñet xaj seenu cër gëna a nga bayyi fi sa rakku ju jigen wala sa mag ju jigen joo xamni nday ak bayyi ngeen bok mu waro da jël nisif waye du kenn ñaar lañu ñaar lañu kat am rakam ñu ni la kon nañu joge nisif ñu yobbu len sulu sani nga bayyi fi sa rak bu góor bu jigen wala mag ju jigen jo xamni yena bokku bay kesse kese mu waro na jël nisif bu boba dañu iza taaddadat bu boba dañ len di jëlé nisif yobul len sulu saani léegi adat bobu ñaar buñu demon ba fukku tamit dañuy dem sulu rek dañ len di yokal seen tur sulu saani kon leer na kon jëm nañ ci juroom ñi wara jël nisif nga xamni lim na len moy comme ni ko limi sen dem ci ñaar ñi nga xamanteni ni wara jël rubu dem ci kenn ki nga xamni ni wara jël sum ñëw ci ñeent ñi nga xamante ni ñoo war a jël sulusaani te ma tudd la ni ña doon jël nisib bu ñu limoo rek nga génn ci zaw ji bu ñu limoo rek ñoom ñooy jël li nga xamante ni mooy sulusaani bu ko defee ñu ngi ci daal gi xabaada ñu dem ci baa gi baa gi ci topp baa googu ci topp mooy ñaar ñi nga xamante ni ñoo war a jël sulus am na ñaar ñoo nga xamante ni ñaar kepp lañu keneen du ko jël maanaam amna na xaal yuy daje ñoom sulus lañu wara jël manam alal ji ñu ñett ko ñu xaaj ko ñett xaaj ñu jël ben ka ca njëkk yaay la ka ca top doomi nday la doomi nday dégg nga est ce que dégg ngeen bu baaxa baax doomi nday day jël sulus yaay day jël sulus doomi nday ab cërëb moy ne bu ñu ne la woon cërub doomi nday boy lan moy cërub doomi nday moy ñu xaaj ñetti xaaj mu jël benn ba cërub yaay mooy ñu xaaj ñetti xaaj mu jël benn ba waaye ñoom ñépp ku ci nekk ci ñoom ñaar am nag nu muy demee nga jóge foofu dem ci beneen cër bu gën a néew waaye ñoom du ñu dem ci cër bu gën a mag ñoom foofu dañuy jóge wàcc ci cër bu gën a néew mooy xoj bu xirmaan ñoom ñaar ñépp dinañ ko def kon ummu muy yaay bu waa ji gaañoo am na ay xaal baay yu fi doom bàyyi yu fi nii bàyyi yu fi naa ay xaal yu bari la bu boobaa sulus lay jël ak xuli Euh, doomi nday ju goor la wala ju jigen ñom tamit deugar astaghfirullah ju goor bok dama jum de nga maam ju goor mom tamit dina jël li nga xamanteni mom moy moy sulus ñu xaj ñett xaj mu jël ben bu ko defé ñu gem nak ki ki mujju ci cër yi ki nga xamanteni mo mujju moy cër bi nga xamanteni moy mujju moy mooy ben yi nga xamanteni dañuy jël sulus manam ñu xaj ben xaj ñu jël ben ba bu boba yaakaar naa ñaari nit a koy jël juróom ñaari nit juróom-ñaar ka ca njëkk mooy baay déet naa ko waaw ka ca njëkk mooy baay baay yan saa dana jël sulus bu doom amee maanaam ñu xaaj juróom-benn xaaj faru waalis waaw maanaam bu bu ñu xaaj juróom-benn xaaj mu jël benn ba moo ca njëkk yaay xam nga nee nañ la woon sulus la war a jël bu doom amut waaye am na xaal yoo xamante ne bu doom amee ak yeneen xaal yoo xamante dafay jóge ñëw sulus maanaam ñu xaaj juróom-benn xaaj mu jël benn ba ka ca topp mooy aljaddatu maam wala ah, aljaddu tudd naa ko direct aljaddatu mooy maam ju jigéen waaw waaye nag dañ cay yokk aljadda as saxiixa maam ju jigéen nag ji ci war a donn mooy maam ju jigéen ji nga xamante ni moo jur say ay mubaasharatan bu mu am benn maam bu dox seen ah, maam ju jigéen bi nga xam ne moo jur baayam mubaasharatan bu amee beneen rek duur dam moo tax ñu naan aljadda as saxiixa foofu moo tax saxiixa arab baat indi ko ci maam jooju moom tamit day am dana am sudus am na xaal bu muy am sudus bintul ibni muy sët bu jigéen am na xaal boo nga xamante ni moom tamit day jóge nisifam boobu dem sudus jóge dana jóge nisif dem sulu saani jóge sulu saani dem sulus moom dina jóge ci ñetti xaal dina jóge sut nisif xaaj am boo xamante ni bu ñu taaddu te ma ko sànq ñu dem sulu saani am xaal boo xamante ni dañuy dem sulus moom tamit ci la bokk ki ci topp mooy ak uxt mooy ixwali um bu fekkente ni dañu walimu xam nga axuli um bi bu dee benn la day jël sulus moom ak yaay ñoo doon partage sulus mais am na jamono boo nga xamante ni bu dee dañoo limu day jël sudus dégg nga ak kenaat ki ci toppaat mooy al uxtu li ab moom tamit am na benn xaal boo nga xamante ni dana jël sudus nga xam ni ki ci nekk rek ci yiimalu mooy juróom ñaari yi nga xamante ni ñooy jël sudus fi mu ne ku ci nekk Euh, bu ñu la doon la xaal bi nga xamante ni moom la war a jóge sudus jóge nisim dem ki loolu day compliqué day jafe lool lool lool bu ko defee su ma juumulee maas fu heure bi toll damay bañ a gën a guddal ndax fi ne moom gars yi xiif nañ lool te yëpp yi compliqué na bu ko defee yooyu rek daanaka boo ko limee mooy ñi nga xamante ni ñoo war a jël cër yi bu ko defee nag euh, ma tënk rek bu ko defee ñu jeexal li nga xam ni mooy euh, mooy daanaka li tënk lépp rek maanaam li tënk miraas mi lépp bu ko defee tudd nañ ashabul furud comme ni ma waxé won woon ndial ben moy dafa am ño xamni cër lañu wara jël moy ñima la limal ni xamna ni jàppu len lépp mom mais nak di nga am notion ci mbir mi moy ñima la limal ni ak seeni cër dafa am ño xamni nak waru ño am cër tansib lañu wara am kessé am ño xamanteni dañu wara am tansib ak cër légui nak ñan ño wara am tansib des na 40 minutes des na 40 minutes d'accord léegi ñan ñoo war a euh, jël temps yi maanaam ñoo xam ni ñoom dañuy xaar alal ji mu kii ñu ñu ñu séddoo ñoom du ñu am cër waaye ci seen biir daf ci am ñoo xam ne dañuy am cër am loolu loolu nag yaakaar naa su ma juumulee ñaar lañu ñuy am tansib boobu mooy baay ak yaay euh, dëgg la mooy euh, baay ak maam ci góor ñi parce que ñi nga xamante ni ñooy aasib ñi ci ëpp ay góor nañ mais dinañ ci ñëw aasib dafa bëri ay façon am na aasib bi nafsihi am aasib bi xayrihi am aasib ma xayrihi bu ko defee nag ñu dugg ci aasib bi nafsihi ki nga xamante ni moom kenn yóbbaale ko moom ci boppam moo am dooley maanaam day bàyyi asxaabul furud ñi ami cër ñu séddoo bu ñu paree moom mu jël alal ji moom kese ki nga xamante ni maanaam bu fa desee moom kese gaa yi day bàyyi borom cër yi bu dee kenn la bu jëlee moom day jël la ca des bu dee ñaar la da leen di bàyyi ku ne jël sa cër mu jël la ca des ak nu mu mën a ñoo ñu ko ca jiitu boom bu boobaa da delluwaat ca fa ma tàmbalee woon mooy aslu ba asl ba maanaam ci nit ki taxaw def nii foofa ngay dellu pour am ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xam ni aasib la ñuy doon la looja comme ni ma la ko lii ma la woon ñooña ñan la kan moo ci jiitu ñi ci ëpp priorité ci tegle ko mooy doom ju góor sët bu goor ka ca top moy bay bay ka ca top moy mam ñi ñepp may lim ku ci nekk am nga possibilité manam bayyi ashabul furud manam sa possibilité moy nga bayyi ashabul furut ñu jël seen cër nga jël mam ak euh, ak lu bu kawe kawe bay ak mam ak euh, ak ashaqiq manam sa frère bi ngeen bokal nday ak bay koku tamit mom tamit am possibilité ansib sa frère bi nga xamanteni bàyyi rek ngeen bok mom tamit am na possibilité ensuite sa frère bi nga xamante sa domi frère domam sa frère bi nga xamante da ngeen bok nday ak baay domam mo xam sa mag la wala sa rak la ak sa frère bi nga xamante ni rek ngeen bok domam bàyyi tax nga ñëwaat ci côté droite bi bàyyi tax mom tamit ansib lay doon gi nga xamante yeena bok nday ak baay bàyyi tax bi nga xamante ni rek ngeen bokk ansib lay doon domi tax bi nga da ngeen a nday ak baay day doon ansib domu bàyyi tax bi nga da ngeen uh, bàyyi rek ngeen bokk day doon aasim bu ko defee gis nga ñii doon aasim ñii ñëpp mën a limal ci ni ma ko limee ku jiitu rek am na looy xañ sa morom ñi nga xam ne nag ñoo am possibilité ci ñi ma lim am cër am am nañ possibilité am cër am possibilité aasib bàyyi la ak maam ñii ñoom lañuy wax aasib bi yi ñoom soxlawuñu ndimbal waaye ñoom kese bu ñu fi desee nit ñi dañoo war a séddoo sé ñoom ñu jël bu ko defé ma limat ko ci gaway moy doom ju góor seut bu góor bay mam sa euh, rak wala sama gi nga bokkal ak bay sa rak wala sama gi nga xamni bay baay rek ngeen bok domi sa rak wala sama gi nga bokkal ndey ak bay domi sa rak wala sama gi nga xamni bay baay rek ngeen bok sa bay tax bi bok ak sa bay nday ak bay sa bay tax bi nga xamanteni mok sa bay bay rek lañ bok domi sa bay tax bi nga xamanteni mo bok ak sa bay nday ak bay ak domi bay tax bi nga xamanteni mok sa bay bay rek lañu bok bu ko defé ni ñoy ñoo nga xamanteni dañuy def asib bi nafsi boo ko defee mooy ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy donn ci li nga xamante ni mooy mooy sabab waaye nag bu ñu demee ci ñi nga xamante ñu ñi doon ci nasab waaye bu ñu demee ci ñi nga xamante ni ñooy doon ci sabab am na fa benn aasib boo xam ne aasib la waaye aasib la bi nasab mooy ku nga xamante ni dafa goreel jaam bu boobaa moom it du doon cër moo xam góor la moo xam jigéen la bu boobaa daam bala mu fa bàyyi nga koy jël boobu beneen façon aasib la kooku moom mooy aasib bi nafsi mooy góor ñooñu mala limal maanaam bu boobaa ñoom bu ñu dee bu dee kenn la day jël alal jëpp bu dee ñeenti góor la dañuy seddoo bu dee juróomi góor la dañuy séddoo dégg nga bu dee ay doom bu dee benn góor day jël alal bu dee ñaar dañuy séddoo dañuy tolloo bu dee ñett la dañuy séddoo dañuy tolloo bu dee sa frère la bi nga bokk ak ndey ak bu dee benn frère la day jël alal ji bu dee ñaar lañ dañuy séddoo bu dee ñett lañ ba fukk dañuy séddoo bu dee frère bi nga xamante ni bàyyi rek ngeen bokk kasaalik bu dee sa bàyyi tax kazalika bu dee sa doomi bàyyi tax wala sa doomi frère kazalika waaye yooyu yëpp ni ma ko libe mooy priorité ñii buñ fi nekkee ñii duñu am dégg nga bu ko defee ki ci topp mooy li ñuy wax aasib maa xayri yi maanaam kii bokkul woon ci ñi war a aasib waaye dafa am lu lu ko indil moom mu aasib ku ne xam na ni bintu cër lay am muy inisif ku ne xam na ni uxtu shaqiq cër lay am ku ne xam na ni bintu ibnu cër lay am mooy ñi doon jël nisib te nga génn ci saw ji ñoom ñëpp dañuy defaat asib maa xayri ñi doon jël nisif nga génn ci saw ji ñuy jël sumun boo ci génnee saw ji boo ci génne waatee kii tamit dinañ defaat asib maa xayri kañ lay doon maanaam bu fekkente ni ñoom dañoo am góor gu ànd ak ñoom maanaam tey ji waa ji dafa làqu mu bàyyi fi doom ju jigéen lan moo nekk ab cëram juuf doom ju jigéen la fi bàyyi waa ji dafa gaañ bàyyi fi doom ju jigéen lan moo nekk ab cëram benn doom bu jigéen waaw ni sif la war a am léegi nag waa ji gaañu na ñu ni ah am na rakk ju jigéen kat waaye xamuñu ko woon léegi am na ñaar waa ji gaañu na léegi kon euh, ñaari doom yu jigéen la fi bàyyi lan lay am sëñ Juuf mu jël ñaar sulu saani jërëjëf yow boobu yaa ngi suivre bu baax a baax léegi nag beneen possibilité boobu nag bii may ñëw nag moo lay jàngal asib ma yi waa ji dafay gaañu bàyyi fi ñaari doom yu jigéen ak doom ju góor dégg ci bii lañ yegg seegul waa ji gaañu na bàyyi na fi ñaari doom yu jigéen ak doom ju góor wala waa ji dafa gaañu bàyyi fi benn doom ju jigéen ak doom bu doom bu góor bu boobaa doom ju jigéen ji amoon na possibilité jël ni nisif am lu ko ko xañ mu dem su am na ko fa xañ léegi nag bu doom ju góor ñëwee ñaari ñaari cër yooyu yëpp day daanu bu boobaa dafay jóge day dugg nag ci aasi maa yi foofa lañuy ñuy defee li zakari mislu hazil unsayayni muy góor ñaar jigéen benn bu boobaa day génn ci euh, xaalub jël cër dugg ci góor ñaar jigéen dégg nga kon gis nga fi góor ñaar di jigéen benn ñëwee mooy aasi maa xayrihi bu boobaa nag noonu nga ko amee ci maanaam euh, bind muy doom ju jigéen noonu nga koy amee sët bu jigéen moom tamit bu amee ak moom la ñuy wax akul mubaarak ñi liggéey ci miraas xam nañ ko bu amee frair day jóge ci cër daal di dem ci séddoo moom ki ci topp muy uxtu as-saqiqa sœur bi nga bokkal maanaam sa mag wala sa mag wala sa rakk ju jigéen bi nga bokkal nday bàyyi bu amee rakk ju góor wala mag ju góor day jóge ci cër dem ci ansi bu boobaa ñoom tamit dañuy séddoo li zakari mislu hazzi unsayayni naka nonu sa mak wala sa eh, rakku ju jigen ni nga bokal baye kesse bu amé mom tamit ko nga xamante mom rakam la wala magam la bu boba day joge foofu dem ci seddoo li zakari mi soxal sayyid kon li ñuy dégg tay fi ma tollu ni muy asim ma xay fofu foofu rek la li zakari mi stuhazil unsayni am moy góor ñaar jigen ben waye nak li tax mu am solo moy li ëpp ci mirasum jamono ji lolu la moo tax mu ëpp solo boo gisee maanaam mu nekk lu gën a siiwit loolu la ndax bu njëkk dafa am dafa amoon xew-xew yu doon am comme dañ daan dem ay xare di xeex di rayante da ngay gis benn famille bu dem ñëpp dee ba mu des maam ji bu boobaa miraas bi day gën a compliqué nga dem benn xam bu dee ñëpp gaay ba mu des rakkam ju jigéen ñëpp dee ba kii boobu ay kilo mais nag bi nga xamante ni jamono yi jàmm la ñu toll. faru waaris bi bari. voilà mi ngi noonu. miraas day yomb jeex na bu faru waaris amee rek miraas day yomb mi ñoo ko jamonoy paix nga xam ni euh, benn problème amul miraas bu fekkente ne famille bi dañuy dund normal nga xam ni macha allah accident wuñ ñu dara miraas bi daanaka rek lu ci ëpp da ngay jox asaabul furud dem li zakari un sayni waaye nag bu problème amee nag foofu nag la ñuy soxla nag dëgg-dëgg ñu toog ñu kii ci xamal ma la li mu bëgg a leeral daal mooy. miraas mépp mu jigéen jiite. day daal di compliqué. waaye nag su ko góor jiitee rek. léegi day daal waaw waaye bu ñu xoolee ni góor nit moom jigéen moo gën a jege. Mm-hmm. ah boobu complication day daal di moom xam-xam. dëgg la rek koy lijjanti. dëgg la macha allah macha allah kon loolu mooy asma xayri kon bu ni la woon kañ kañ. bu ñu la laajoon question kañ la wala nit ñëw ni la rek góor ñaar jigéen benn dégg nañ ko ko def loolu góor ñaar jigéen benn benn xaal rek la mën a amee muy aasib maa gayrihi te ñetti façon aasib moo am mooy aasib bi nafsihi mooy ñi ma leen njëkk a lugal limal aasib maa gayrihi mooy ñi ma lay limal nii mooy li zakar mi ak aasib bi gayrihi dinañ ci ñëw aasib maa gayrihi mooy kan mooy waa ji dafa làqu bàyyi fi ay doom yu góor yu bari ak doom yu jigéen yu bari bu boobaa dañuy séddoo li zakari mislu hazzi unsayni góor ñaari jigéen baa ngi waa ji dafa gaañu bàyyi fi ay rakk ay euh, ñu mu bokkal ndey ak baay ñu bëri ñoo xam ne ay góor ak jigéen lañ dañuy séddoo wala ñoo xam ne ay doomam baayam lañ ay góor ak jigéen dañuy séddoo wala ay baay tax ay doom euh, comment dire wala euh, ay sët yu jigéen ñoom tamit dañuy séddoo bu ko defee kon ci xaal bii rek la li zakari mistu xas unsayni di amee bu ko defee nag ñu dem ci dernier point bi muy dene muy aasib muy aasib bi xayrihi moom kañ lay am boobu nag moo ci gën a compliqué aasib maal xayri mooy maanaam bu fekkente ni uxtu saqiq maanaam tey dafa waa ji dafa gaañu bàyyi fi doom ju jigéen ak mag ju jigéen kese waa ji bu dee dafa gaañu bàyyi fi doom ju jigéen ak mag ju jigéen kese ju mu bokkal ndey ak bàyyi bu boba ñom ñaar dañuy seddo alal ci ah, ah, ah, dañu am dafa am ay laaj. waaw ma ngi ñëw bu kan ma ma kii ko. legi buñu démé bi ci topat moy seut bu jigen bu fit euh, nekké ak sœur bu jigen kese ñom tamit dañuy def asim ma xeyti dañuy seddo alal ci euh euh ko ci top moy ñom ñaar ñepp muy dom ju jigen ak seut bu jigen buñu andok dom bay bu jigen mom tamit dañuy defaat li nga xamantene moy asim ma xeyti loolu bu ko defé moy dernier asib bi bu ko defé comme dañu ni dañuy dugg ci laaji kon daanaka euh, wër nañu lepp daanaka matal nañ lepp loolu dal moy ci teunk li nga xamanteni ni amé ko ci mirage téye ko di nga ci am touti rek di nga ci am touti waye deug deug man ko deug deug mom faaw nga muraja muraja awaat muraja awaat pour mu doora ñew kon ba pare di ko ma sha allah kon ñi ngi leen di euh, tuubal bu baax baax di leen dogal ngant ndax xam-xam yi néew na te fasaaxa bi des na waaw te it ci weeru koor la ñu nekk te it toogaay dafa mitti rawatina sunu baay yi ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax ci toogaay bi ak sunu maam yi ci toogaay bi xam-xam yi néew na te mu ngi noonu daal fasaaxa